ba tey ci seen scandale di jour de ce 22 août 2024 ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. waaw booy projet bi projet bi projet bi lii mooy projet bi xool lañ dàmbuj lii rekk moo lañ taxoon rayante lii rekk moo taxoon muy wër ci télé yi di wax ay Macky Sall lii gars yi faalewuñu askan bi waaw dañuy foowee alalu askan bi lu ne ñu tuumal lañ ko takk rajo yeeg daganal góor jigéen gëmuñu ki maanaam nekkul ñu fi askan bi seen bopp lañ fi nekkal xool ko délégation cinq oto di nguuru na ah da ak daraja yi lii rek moo lañ taxoon jóg kuusal ma toog ma ñam li ngay ñam te pourtant ye jamono ji askan bi ñi ngi ci ndox bi jamono jii nii ñi leen doon ñi ngi ci ndox bi ñi doon ñi leen doon votel ñi ngi ci ndox bi jamono ñi leen doon votel pour ñu gis sak sax problème la pour ñu gis wéccet sax problème la ñoo leen sonn ñoom léegi jox nga lañ nguur gi léegi ñoom ñi ngi nguuru yéen ñu doon saaga ndax ñi xool lañ léegi <laughs> sawaay avion lay doxantoo avion présidentiel président la jël di ju doxantoo dem fële Rwanda ñu humilier ko mu dem Mali ñu humilier ko comprendre mu wëlbati nag ñëw palais ba di fa di fa xuloo di fa xeex <laughs> non booy mora sama boy bi ndaysan sama boy bi <laughs> tamsir tamsir wuyu bok wuyuma wuyu ma maa ngi lay woo boobu léegi nangoo ma wuyu <laughs> ñoom ñëpp ruus jaru ko politique mi ngi ni yena non saga saaga nit yi seen ak sen xarit yakuna sen manam lu beuri de ngeen ko yak ndax lan gaay liñ leen gëmloo won ñu mu ci sen maay mi ngi ni anumu ñom ñi nguur rek lañ taxoon di dara dara ja rek fen lañ fen lañ ba fallu duñ fiy def dara dara dara dama ne la Macky Sall lépp lu mu xalaat lim fi liggéey ba 2029 chantier yi la ñuy yeggali comprendre PSE bi mooy continuer projet bi mi ngi ci mbalit bi le chien à bois caravane passe Macky Sall suy ñëw nag retour bu gàdd lay ñëw sénégalais yëpp teeru kon nag ne yow rek la ñuy ah, ku c'est pour nga am dara. nit ki booy liggéey c'est pour nga am dara dañuy waxtaan wax dëgg booy liggéey c'est pour nga am dara loolu amul sa demal maa ngi ñëw booy liggéey c'est pour avoir quelque chose au retour Dame muj a eu sa part il est il est en train de déguster et ça se voit que gâteau bi neex na trop ubbi lañ ko oto bi dugg na barke rasulillahi réew mi dafa am ci ñu mu métti am ci ñu mu neex et c'est dommage parce que injustice nag mu ngi commencé ci yàlla nag ndax yàlla des fois yàlla man yàlla des fois dama xam ne man yàlla des fois day gis dara de yàlla day xam ne lii lii lii wax dëgg fa yàlla lii savapa yàlla di ci di di seetaan nun yàlla nañu yàlla musal ci seetaan yàlla maanaam yàlla toog di la seetaan yàlla nañ ci yàlla musal waaye réew mi jaxasoo nag daa mbooj de amna param paaram wa dam duñu chompal ci di gëtu bi waye jar na ko nag parce que wax deug fa yalla bi mu fi nekké aussi dam def na lu ne dam neena tiré nañ ko fi dé bal réel donte enquête bi après xamuñu fan lu mujj donc dam tay bu démé bu dugg ci auto yi ah alhamdulillah ñu koy félicité mën mën mun fu nekk ni ah mun fu nekk ni ha ah, ah réew mi ku ne neexut da faluwut waaw da faluwut réew mu métti na trop mi am na ñu ko yëgul de ñi nga xam ne seen essence doy na dépense ba doy na ah crédit ba doy na connexion ba doy na voyage yi boo bëggee nga tukki ah noo yëgee lu métti mënoo yëg lu métti waaw salaire bi dañ koy virer à partir de vingt ñu virer la sa salaire te kenn xamul nan ay ay millions la xëy na yàlla baax na bëri na sutura hmm, yàlla bëri na sutura mu ngi noonu jadi jadi jonga daw yoon li nga jël di fii waay mën ci ñaar nga kóolal xaw ma lu la ci di doom yaay